te làmb ji ba léegi ñu laissé ko en rade bàyyi ko waxaguñ dara lu ci jëm ci loolu lañ bëgg waxtaan ak yéen mbokk yi ci ni mu gën a euh, làmb mbokk yi yàlla dafa dogal euh, jeunesse bi nekk ci réew mi euh, du ma ne ñi ci ëpp sax mais am na masse bu ama ama am solo boo xam ne moom la ñuy pratiquer yàlla dogal aussi mu nekk seen gagne-pain ñii mu nekk seen métier ñu ci mën naa ne faj ay buumi gàcce euh, mu nekk métier boo xamante ne aussi ci ñoom euh, yóbbu na leen fu sore sore sore sori respecté nañ leen à travers métier boobu am nañ ci lu ne à travers métier boobu mais aussi moom mooy unique métier bi nga xam ne moom la ñuy pratiquer di ko def di ci jëlee lu ñuy yóbbu ci seenu njaboot di ci faj seeni soxla di ci faj soxlay jaam ñi sport boobu mbokk yi ñu gis ñu tolloon nag ci jamono bu yéeme muy mbas mi bi mu ñëwee comme niñ ko defee dakkal nañ lépp luy yëngu-yëngu muy ci biir réew meeg bitim réew fépp foo xamante ne nii tey euh, mbas mi yegg na fa rek àgg na fépp sax dakkal nañ seeni yëngu-yëngu que ça soit ay yëngu-yëngu sportif que ça ay yëngu-yëngu culturel wala leneen wala leneen mais ñu dem ba benn période ñu gis ne gan goo xam ne nii kat dafa ñëw te kenn xamut kañ lay dem dëkk ak moom day gën. ngay tëju di ko daw di ko daw ba mujj la yàqal lu baree baree bari ci loolu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall génnoon ci discours am bu am solo ba daal di wax wax joo xamante ne nii ñun ñëpp liñ ci mën a jàpp mën ko cee retenir moom mooy vivre avec le virus kàddu googu foog naa ñu bari dégg nañ ko ci réew mi ba waral ci débat télévisé yi ñu ci bari ñu ngi doon ŋàññ fi jamono ji toll situation mbas mi ñu naan vivre avec le virus naka la mën a demee ainsi mais moo boobu noonu li tax ñu téye ko parce que période bi mu déclaré loolu activité yu bari reprendre na nit ñi commencé waat nañ transport bi di dox liggéey yi di dox marché yi ñu ubbi ko jàkka yi ñu ubbi ko jumaa yi ñu ubbi ko mën naa ne lieu de culte yépp ñu ubbi ko Euh, barab yi ñuy euh, fowee presque yu ci bari ñu ubbi ko donc nit ñi commencé waat di dem ci seen i activité di liggéey seen liggéey ñëpp di liggéey nag sëf acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci làmb sëf ñi nga xam ne nii tey làmb rek moom mooy seen métier sëf ñi nga xam ne nii tey làmb ci la ñuy jëlee lu ñuy fajee seen i soxla di ci faj seen i soxlay euh, jege ñaale mel ni nag dañu ko fàtte comme ni ñu fàtte yeneen sport yi ñu dem ba benn période ñu dégg ne euh, football bi ñu ngi koy waaj a ubbi te football bi bu ubbee yeneen sport yi aussi dana ci topp mais làmb xalaatut benn yoon wala dégguñu fenn foo xam ne nii tudd nañu ko tudd ak ubbeem loolu nag xaw a metti ci acteurs yi ñi koy pratiquer xaw a metti aussi ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi gravité autour de la lutte méttit boobu nag moo waral waxtaan bi tey parce bu ñu xoolee àdduna bi ni muy doxee xool yeneen dëkk yi comparé ko ñun ak suñu dëkk dañuy naan làmb ji ñu tëj amuñu benn justification boo xam ne nii mën nañu koo teg bu mën a tax ñu xam ne vraiment lii moo tax ñu tëj làmb ji amuñu benn justification benn benn benn bu ñu mën a justifié woo tëj gi ñu tëj làmb ji mbokk yi bu ñu demee ca Angleterre yàgg nañu reprendre seen activité football bi yàgg naa commencé euh, ñu ngi ñun ñëpp ñu ngi seetaan Ligue des champions di seetaan aussi championnat ci mbooleem pays yi nekk Europe. mais benn bi ñu leen ci mën a jëlal rek mooy rencontre bii mujjee passé diggante Liverpool ak Tottenham bi ko Liverpool di gagné par deux buts à nañu xoolaat match boobu dernier bi bi Firmino bi mu dugalee bi xool leen bi muy traversé côté tirbine bi xool leen foule bi ngeen di gis pourtant fii distanciation sociale amu fi nit ñaa ngi jaxasoo teew dañoo takk seeni mask mu ngi jaxasoo toog toogaay boo xamante nii comme si dara xewut takk seeni masque jël nañ seeni mesures auparavant avant ñuy dugg ci stade bi def nañ li ñu war a def avant ñuy dugg ci stade bi mais terewu leen a toog seetaan match bi am ñu terewu leen ko mais pourtant boo xoolee Angleterre jamono jii ñu toll lafa am ci ay cas xaaju xaajaat ba amagut Sénégal ndax ci seeni ci ay xayma deux vingt cinq mille sept cent quatre vingt six moom la ñu am démb rek démb am nañ quatre cent trente démb rek am nañ quatre cent trente nga xool tey ci li ñu am ci ay décès mu Angleterre Royaume-Uni li ñu am ci ay dese depuis bi coronavirus bi commencé ba léegi mu ngi toll ci cinquante sept mille sept cent vingt deux nga comparé ko ak Sénégal du ma ne euh, démb mais Sénégal depuis corona bi dugg fi ba léegi nii depuis le 2 mars ba léegi amagul xaaju li Angleterre am ci ay décès Angleterre mi am cinquante sept mille sept cent vingt deux décès Sénégal boobu mu ngi am trois cent cinquante sept li ñu deele démb rek Angleterre li ñu deele démb 438 yi ñu deele démb moo ëpp fuuf Sénégal li mu am ci ay décès depuis bi corona bi commencé ba léegi tey boo xoolee suñuy cas ñun ñu ngi am 17 451 cas depuis bi corona bi duggee ba léegi nga xool Angleterre ñoom ñu to ñu toll ci ay 225 786 cas te teewut reprendre nañ seen sport. def nañ seen i mesures barrières li ñu warloo ak mbas mi ñu ngi koy def mais terewu leen a dem stade seetaan yi mais naka lañu koy defee dañuy jël nombre bi nga xam ne nii normalement en temps normal moom la stade yu waroon a am ci ay nit soit ñu def division bi soit divisé par trois wala leneen mais dina am ay ay ay ay spectateurs yoo xam ne dinañ nekk ci stade yi mën a suivre match si mais pourquoi pas ñun mënuñu def lool. arène nationale ñaata place la vingt mille places mais tey bu fekkoon ne dañoo ne au lieu de vingt mille places léegi dix mille places yi rek la ñuy autoriser pour ñu remplir ko euh, euh, promoteur bi amul droit jaay plus de mille billets limite bi dix mille billets la ba pare ñu sàmmwante ak les mesures barrières képp kuy dugg nga takk sa masque laal gel dem jël sa place nga toog mais dinañ reprendre suñu sport sportif yi di ci gis seen bopp ñeneen ñi ci war a gis seen bopp di ci gis seen bopp te problème du am mais nag bu ñu bëggee jël ñi nga xamante ni ñoom ñooñu ëpp doole fuuf ëpp ñu ay kaa ëpp ñu ay décès bëgg ñu teg suñu bopp au niveau que ñooñu wala sax ñooñ li assouplissement yi am foofu sax amul fii ci ci ci côté sport bu boobaa aussi day xaw a yéeme te nag am na sama benn jëwrin sama benn kilifa goo xam ne day faral di wax benn wax Euh, muy wax ju ma ju ma marqué ju ma touché mu ne Afrique coronavirus bi moo war a renverser situation yépp corona bi rek mooy benn euh, benn benn benn mbir boo xamante ne nii mën nañ ci sukkandiku ba mu am renversement de situation lépp lu nekkoon ay jafe-jafe Afrique mu mën a saafarawu lépp lu nekkoon lu leen di gàllankoor ba duñ mën a développer mu mën a deñ mais loolu tey bu ma ko tourné indi ko ci làmb ji dama naan coronavirus moom mooy mbir moo xamante ne nii fi la làmb waroon a jaar amaat beneen tournir jaar fi développé ba faw ba képp koo xam ne yaa ngi fooye làmb di ci gis sa wërsëg mais tey euh, euh, président de la république ci lan lay lancé wu emploi des jeunes ci lay lancé wu ci lay rey boppam ñu ngi wax formation après formation ñu wax insertion insertion xale yi am ci lu ñu jàpp am lu ñu yóbbu seen kër ba seen xel dootul nekk ci géej gi mais pourtant am na benn tey benn levier boo xamante nii état bi bu ci tegoon loxoom dana saafara lu baree baree baree baree baree baree bëri ci emploi des jeunes dina ci saafara lu bari parce que jeunesse bu demee ba toll ci benn situation de détresse bi sport bokk na ci li nga xam ne mën na koo delloosiwaat à la raison rawatina nag mu nekk sport boo xamante nii da ciy gañi xaalis di ci faj ay soxlaam nekk ci noble di ci tabax kër di ci yóbbu yaayam màkk ainsi de suite ainsi de suite mais coronavirus bii tey mën nañu permettre ñu agsi foofu naka lañu fay agsee tey mbokk yi nañu xoolaat nañu xoolaat bu baax ngeen jàngat ñu xalaat ngeen xool fi ñuy waxee ak fi ñuy teg wax ji ngeen imaginer aussi niveau de réflexion bi ngeen xool ba xam ndax am na pertinence wala déet tey bu ñu xoolee fi nga xamante ni moom la ñu toll ci làmb lan mooy jafe-jafe yi mooy bu ñu amee dix mille licenciés li ciy bare par an li ciy bëre par an bu ñu amee dix mille licenciés ñoo xam ne am nañu licence que ça soit licence lutte avec frappe wala licence lutte simple ñi ciy bëre par an matul sax. 3000 ci 10000 10000 licenciés li ci bëre matul sax 3000 donc tey bu fekkee ne dañoo def ay calcul peut-être ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu calcul dama naan pour cent sax est-ce que àgg nañu fa mooy téeméer boo jël ci ay mbër ñaar fukki yi ñooy bëre par an at mu ne mais loolu lu tuuti tuuti la ñeneen yi lan la ñuy def dañuy some duñu am liggéey wala duñu am parce que loolu moom mooy seen liggéey du ñu am combat ñu ngi entraîné ñu ngi rey seen bopp mais loolu ban xeetu métier la te pourtant solution am na tey bu xoolee favoritisme bi nekk ci làmb ay champion ngi fi toog cinq ans année blanche mënuñu am combat lu tax parce que amuñu public te pourtant ay champion lañ ci bëre ñu bari nangul nañ leen seen mën a bëre seen njàmbaar seen am fit mais problème bi mooy amuñu public moo tax mënuñu am combat. promoteurs yi c'est normal ñu favoriser ñi nga xam ne ñoo am public parce que benn source de revenu la ñu am ñaar boog source de revenu la am ci làmb mooy sponsor mooy gise tey sponsor bi dama naan à 40 pour cent parce que du ñëpp ñoo mën a am sponsor gise bi à 60 pour cent li ëpp ci seeni recette mu ngi jógee ci gise yi donc c'est normal ñu favoriser mbër yi nga xamante ni ñoom ñoo am public. mais loolu yëpp dañ ko war a mën a saafara te corona bi jox nañu ay solution yuñ ko mën a saafara solution yi mooy lan nañu dellu si waat ñu xool sport bi nga xam ne moo am au niveau international comparé ko tey ak ñun suñu sport waxoon nañ fi la fois passée ne naming bi mën na euh, saafara jàngoro yu bari ci wàllu làmb mais tey dañu ñëw ci beneen réflexion mooy tey nañu xool droit TV yi tey bu ñu xoolee en Europe seen droit TV ay jamono. mu ngi jóge woon presque ci euh, soixante mille euh, soixante millions d'euros dem ci six cent millions d'euros diggante boobu soixante million d'euros ba six cent millions d'euros tey boo ko xaymaa ci français CFA mu war a nekk ci quatorze millions euh, quatorze milliards jëm ci trois cent quatre vingt milliards loo xam ne droit TV la nga xool club yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk en Europe seen source de revenu bi ëpp solo. droit TV la presque day recouvrir plus de 60 pour cent ñoom ci seen budget donc ñoom seen sport bu avancé parce que droit TV bi moo tax mais loolu ñun ak coronavirus bii nii may nañu opportunité ñu xalaat yi ñu dellu siwaat ci pour ñu liggéeyaat ci. niñ ciy liggéeyaate mooy am na ay télévision yu fi nekk benn télévision publique mu ngi fi. am na yeneen i organes yu fi nekk aussi yoo xam ne ay télévision privée lañu mais ñooñu état bu leen jàppalee tuuti ñu mën di doxal affaire yi droit TV fii ci réew mi làmb ji di ci gis boppam. ci naka tey par exemple bu ñu jëlee la RTS bi nga xam ne moom mooy seen nationale la RTS tey mënoon na génne benn budget bu 3 milliards par an di ko dugal ci làmb ji. bu ñu ko waxee nag nit ñi dinañu ree ñenn ñi trois milliards nu ko RTS mën a génnee mais c'est normal ni ko RTS mën a génnee mooy day am ñu koy accompagner ñenn ñoo koy accompagner mooy entreprise multinationale yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. parce que nag mbooleem entreprise bu nekk ci réew mi sponsoring da nga koy def bokk na ci sa cahier de charge mboolem entreprise bu nekk ci réew mi sponsoring da nga koy def bokk na ci sa cahier de charge te tey képp koo xam ne nii am nga événement bind lettre pour ñu sponsoriser la mën nañ laa ñàkk a sponsoriser parce que xamoo fi nga war a jaar mais tey état xam na fi mu war a mën a jaar ba décrocher ay sponsor yoo xam ne nii seen national la koy décrocher RTS la koy décrocher tey entreprise yi fi ne multinationale yi fi nekk amul benn bu ci bañ a sponsoriser la euh, sport bi amul. lenn kay moo ci nekk mooy acteur bi nga xamante ni moom moo koy def wala promoteur bi xamut fan lay jaar ba mën a décrocher benn sponsoring loolu mooy problème mais état en tant que tel xam na fan la war a mën a jaar ba décrocher ay sponsor pour le sport en général mais aussi pour la lutte parce que tey entreprise euh, promoteur yu bari dañuy jàpp ne damay am benn agent en marketing bu mën a décrocher euh, sponsoring alors que dafa am ay ñoo xam ne dañoo spécialisé wu ci wàllu sponsoring ñooñu ñoom ñooy mën a décrocher marché yu mag yooyu mais tey état loolu tëwu ko mais tey état bu ci xaroon tànku tubéyam mboolem multinational yu nekk ci biir réew mi mbooleem tey entreprise yu fi nekk mu weñ seen loxo danañ sponsoriser le sport danañ sponsoriser la lutte parce que ñoom loolu moom moo leen gënal imaginez 60 pour cent dañ leen koy jéggal bu fekkee ne ñoom sponsoriser nañ événement euh, sponsoriser nañ sport indi indi ay justificatif 60 pour cent ci impôts yi dañu leen koy jéggal 40 pour cent ci impôt moom la ñuy fay mais loolu entreprise bu ci nekk bëgg nga sponsoriser mais problème bi mooy ñoom du ñu jóg di dem ci kenn naan ko kaay ñu sponsoriser la mais au contraire nit ñi ñooy jóg dem si ñoom am dossier boo xamante ni dossier bu normal la ñu mën la sponsoriser mais loolu yëpp état mën na ko regle réglel ko tey euh, scène nationale di RTS bu ko defee RTS bu génnee 3 milliards budget 3 milliards. jagleel ko làmb ji par an du ko wàññi dara du feeñ parce que yeneen multinationales yeneen entreprises yi ñu ngi koy def parce que ñoom seen slogan mooy une marque nationale sera plus crédible lorsqu'il est porté par un sportif donc ñoom xam nañ ne pour ñu crédible day am ay sportif yu porté seen marque yu sol seeni logo pour mën a mën a mën a mën a mën a garanti seen seen seen seen crédibilité donc ñoom xam nañ sponsoring lan la leen di jural donc état tey bu weñoon loxo yenn entreprise yi yenn multinationales yi ñu sponsorisé tey la seen leader la seen nationale di la RTS RTS mën na génne budget wu 3 milliards dugal ko ci làmb ji te du ko wàññi dara par an mais imaginez 3 milliards par an ñaata grand combat moom lañ ci mën a taxawal par saison Balla mën na ci bëre deux fois Eumeu mën na ci bëre deux fois Modou loo mën na cee bëree deux fois Gris Bordeaux mën na cee bëree deux fois Bombardier mën na cee bëree deux fois Boy Niang deux fois ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp mën nañ cee bëre te bu boobaa danay saafara dix mille licenciés am trois mille di di ci bëri danañ ko saafara parce que xaalis bu tëgg ay combat am na fi léegi nag répartition yeeg yeneen façon yi ñu koy defee yëpp danañ am ay techniciens yoo xamante ni danañ ko mën a liggéey donc mbokk yi nañu xalaataat parce que mbas mi permettre nañu tey ñoo xam ne suñu sport bii di làmb dañ ko war a jël ci niveau bi mu nekk génne ko ci niveau boobu yóbbu ko at feneen bu ñu gëm rek li ñuy gëmloo làmb dafa am ay réalité d'accord mais réalité làmb weesu wut développé ci développement fu développement am jote réalité làmb nekkul ne lii dañ koo baaxoo di def rek dañ ko war a defe noonu non non non lépp loo xamante ni jamono toll na fa dañu ko war a jël méngoo méngale ko ak làmb ba làmb ji mën a avancé mbokk yi jërë ngeen jëf lii lañ leen indi loon tey ci xew xew làmb ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci yeneen i xew-xew jërë ngeen jëf.